salaamaaleykum euh, ñoo ngi nii ay ndaw yi réew mi di jàngee si réew mi juddoo ci réew mi màggee fi def lañ fi war a def yëpp doon ñoo xamante ni dañuy liggéey si ay société yu wuute waaye ñun ñëpp ñu bokk benn bërëbu liggéeyukaay muy waawe Technology Sénégal ci siège am aux Almadies loolu nag bëri na ci ñu fi ne ñoo xamante ni ëpp na at ñi ñaari at ñi ñetti at ba am na ñoo xamante ni ëpp na juróomi at ñoo ngi liggéeyee si bërëb yooyu waaye dafa am loo xamante ni dafa ñëw muy mbas mi bi mu ñëwee am condition yoo xamante ni ñoom dañ ko teg muy ay charte pour ñii di liggéey foofu mën koo dékku ngir kon woyal seen liggéey si foofu bokk na si loolu mooy balaa kenn di dugg foofu noonu day doon koo xamante ni amul mbas mi ginnaaw test boo xamante ne dañ ko koy defal beneen bi si topp moom mooy diir bu muy nekk foofu di liggéey ak yépp dafay takk mask beneen bi si tegu moom mooy ñoom dañu leen utaloon ay bërëb yoo xamante ni fal lañ leen doon denc di leen confiner foofu ak yeneen condition yoo xamante ni mooy yuy demaaleeg euh, nu ñuy fexe ba fegandikoo ak mbas mi si loolu déppi diir boobu yëpp ñu nekk di wëyal ay nit di liggéey foofu si ay conditions yoo xamante ni yu doy waar la yoo xamante ni même pour E, e, di honorer seen heure supplémentaire yi day doon jafe-jafe si kiy liggéey foofu ñu mën ko ko mataleel si loolu nag ni ñi topp di liggéey ak muñ ak jaamu yàlla parce que ñu ñëpp wute kenn umpalewul ne liggéey jaamu yàlla bi si teguwaat moom mooy ñuy liggéey ñoom di chinois yeeg ñeneen ak ñeneen di amee ay feebar di mbas mi di leen daal ñenn si ñuy liggéeye fii nii toog tey ñii ñoo ngi nekk ci service restauration bi ñii ñoo ngi nekk ci service climatisation ku si mel ni man ñoo ngi may woowee car manager ou bien car dispatcher ñeneen ñi nekk sama wet ñu nekk ay chauffeur man sama liggéey moom mooy bépp demande de de voyage qu'il soit court de court bu ou bien long trajet suñu ko appliqué rek man maa war euh, a def une allocation pour chauffeur bi mën a dem yóbbu ko à destination loolu nag ñu nekk ci ñoom ñuy feebar parfois doo ko xam chauffeur bi yàpp nit ki du takk masque parfois parce que li ñi doon teg ci condition yëpp ñoom amul lenn loo xamante ni doon nañ ko respecté ñoom ñuy tekk seen masque chauffeur di leen yàpp nit di feebar chauffeur di leen yàpp ba parfois doo si am lu dul yóbbu nit ki ba fu mu war a jëm mun la e man de damaa feebaroon ñu ànd ak gëm yàlla di liggéey ak yooyu avec des risques yoo xamante ni kenn xamul empleur bi fu mu yem ñii nekk restauration di leen toggal di leen yóbbul ay ñam ñuy feebar sax nga xam ko ngay jël ay précaution ak i risque dem di leen yóbbul ay lekk ñi fi toog nii tey bëri na si ñoo xamante ni si 26 septembre bi passé lañ ñëw ne leen da ngeen amee corona loolu nag si bés bi njëkk la vingt cinq lañ defoon test bi test yoo xamante ni ñun lënt na suñuy xel parce que dafa am ñoo xamante ni ñoo ñëw foofu defal ñu test yi wax ne ñun de. onze personnes yu fay liggéeyee dañoo corona te ñun communiqué bi nga xamante ni moom la ministère de la santé di jote lu mu joxe néew na fukk ak benn yi nga xamante ni wax nañ am na corona donc test yooyu ñun suñu xel da tey ñuy laajte la fiabilité de ces tests soo leen laajee les résultats ñu ni vous n'êtes pas habilité à recevoir cela loo xamante ni day nekk si sa propre wér-gu-yaram ñu ni yow amoo lenn luñ la si war a wax parce que société bi moo fay tes xam ngeen ne loolu du ay dëgg te jaaruwul beneen bi si tegee moom mooy ñenn si ñi fi ne am na ñoo xamante ne ñoo ngi doog a am corona amaana bu ñu liggéeyewul woon foofu sax du am corona nit ki di liggéey ak yow nga jékki-jékki ne ko da nga am corona njëlbeen gi ñu ne da ngeen di dellu seen kër man bi ma responsable wootee aussitôt xaaruma sax di def di respecter ay hiérarchie dama ne ko man dew ma fenn. ñeneen ñëpp ne demuñu fenn bi ñu xamee ne dëgër na ñu ut une hôtel de la place un hôtel de la place ñu confiné ñu fa te confinement bu doy waar xawma lan moo fa am ñun ñu ñun ñoo nekk fii di sàmmoonteeg yenn yi waaye bu nekkoon ay saay-saay walla bu dee liñ koy waxee ni dëgg la tamit wàll nañ fi ay ñeneen si loolu ñu nekk di wax ak ñoom biñ fi defee ñaari fan ñoom amuñu sax fitu wax ak ñun di ruumalaan ay wax yoo xamante ni mooy dañ leen di arrêté ñu ni ñun nag balaa muy doon lu officiel ñu taxaw jàmbaarloog ñoom wax neen li ngeen di jéem wala li ngeen di waxante ñun yegsi na si ñun ba boo demee ñu ni ba aucune lettre wala une aucune notification officielle n'a été faite mais ñun dañuy liggéey di liggéey ak ay kilifa foofu kenn si kilifa yi koo xam ne dañuy noppi turam ñëw nañu yéen dañ noonu la jotee information bi da ngeen di arrêté ñu ne leen ñun nag ñun si réew mi lañ bokk si réew mi lañ dëkk te duñu ay doxandéem ab doxandéem nag bu jugee fële bëgg a yàpp waa réew ma dafa fekk mu làkkatu si ginnaaw doomi réew ma loolu nag ñun duñ ko nangu tey ñuy wax ne ñoo ngi lànk taxaw ne lépp loo xamante ni xeex la lépp loo xamante ni mën nañ fa aw ngir rek ñu sàmmonteeg suñu ak ak ay yelleef parce que ñu ngi koy fàttaliku ñi nga xamante ni ñi fi nekkoon am na ñoo xamante ni du ñu ay dakaar waa dëkkuñu ndakaar am na ñoo xamante ni dañoo nekkoon fii di loué depuis deux ans ñenn ñi ñëpp ñenn ñi depuis un an ñoo ngi nekk di fay location. au même moment ñu confiner leen si bërëbu liggéey seen bërëbu liggéeykaay donc kooku mënoo xëy rek ne ko da nga koy arrêté xamoo nu ñu toogee woon am ñoo xamante ni ay kilifa lañ yor njaboot bàyyi seen njaboot ñëw di liggéey ñëw rek dàq leen sans un préavis yooyu day doon yoo xamante ni yu doy waar la te war nañ fexe bu dul sax nit ki bëgg-bëggam bi mu am si boppam ngir taxawal euh, euh, dignitéem ak yooyu man si doomi réew mi duma juddoo si réew mi di nangu ñuy xoqatal même bu dul woon man ñu koy teg keneen ñu koy xoqatal si anam yoo xamante ni jaaduwul te kenn xam na ni si jaay doole képp lañ ko teg mooy contestation test yi ak ñan ban structure moo ko def donc ñun dañuy dem droit au but wax ne waa Philippe leen Senghor ñoo ñëw def test yi ñun bi ñuy loolu amee laa dame dama ko interpellé ne ko ah ñun de bu dul sa société bu def bu la def sa test yow de boo dee doomi réew ab doomi réew nga ni ko màndarga yii de feeñ na si yow ba nga ban ne ne da nga am amee tawat li nga xamante ni mooy une structure publique wala une structure d'utilité publique bu fekkee ne dafa amee taxaw boobu ñoom lu ñu waral même bu société bi deful un suivi médical wala une couverture médicale yéen en temps de pandémie su nu signalé nit feebar na yéen ci seen responsabilité waral ngeen ñu un suivi médical loolu wax jooju bi mu ko dikkee mu nekk di victimiser wu di woote fu ne naan daa am luñ koy jiiñ ak ay yooyu aussitôt nag kii nga xamante ni moom la amel relation bu ma woowee wax naa ko waxul dëgg donc te message vocal laa ko ne message vocal yaa ngi fi beneen bi si am moom mooy fiabilité test yi comme ni ñu ko waxee contesté nañ ko ay test rapide la d'ailleurs même maintenant su fekkee ne ba xam dem nañ wala li wax dëgg yàlla demuñu di defaat yeneen test beneen bi ñuy wax moom mooy type de contrat yi wax naa fii ku ne si njël njëlbeenu wax gi am na ñoo xamante ne dañoo wuute si liggéeykaay ñi restauration boo leen fàttali boo leen bàyyi xel wax naa ko fi ba pare type de contrat yi am na fi ay yi mais am na ñoo xamante ni dañ leen jël am na tamit CDD fii mais am na ñoo xamante ni dañ leen jël comme ay journalier mais ab xaj sax boo ko dencee sa kër benn jour wax ma laak at ak ñaari at am na benn àq ak yellef boo xamante ni wareef la si seen diggante donc loolu mooy li nga xamante ni moom moom la ñuy wax beneen bi nga doon wax moom mooy taxawaay bi ñu ci am taxawaay bu normal parce que bu ñu doon daaxee ne dañ sàcc sax amaana doo leen ko yëg donc lépp loo xamante ni waraloon nañ ñoom ak ñoom ñun ak ñoom si liggéey si ak leneen doon nañ ci taxawee si anam bi mu gën a waree te ñun ñuy taxaw di wax buñ doon ay ñoo xamante ni ñu jubul woon lañ seen liggéey duñu am sañ-sañ sañ toog fii te ku ñu gis ñu wax xam ni ñu ñu fay liggéeyal amul kenn ku nu mën a yab si suñu liggéey te lépp lu nu waroon def wala warloo ko ak ñoom def nañ ko léegi nag jaay doole moo fi ne ak xoxatal loolu nag moom lañuy nekk di xeex ba xam dañuy de nan lañ koy xeexee lépp lu ñu xam si xeexin dinañ ko xeexee dinañ am ay plan d'action yoo xamante ñun dinañ ko teg def en plus lu ñu yoon may tamit incha allah ñu jaar si daal di jéem a jotandi lu moom. sànq ci say kàddu mel na ni nee nañ bi ñu leen testé lendemain bi ñu ne da ngeen positif dafa mel ni dañ leen bu leen xëy si euh, ngeen bañ loolu ñu mujj ut pexe ngir euh, tas leen ngeen nekk ci yenn bërëb hôtel de la place euh, ndax ñoom ñoo garanti conditions yi ngeen fi nekke ak suivi bi ak it payoor gi yan condition ngeen di dundee fi mu ne nii maanaam seen mise en quarantaine bi. donc attends mooy liñ ñu ko waxee rek ñoom ñoo ñu fi indi hôtel bi ñoom ñoo yor suñu restauration ñoo yor hébergement bi waaye dañuy wax ni démb koo xam ne depuis le 26 yaa ngi ne ko démb le 28 lañ ñëw ne dañ lay jox ay garab ne da nga naan te loolu sans aucune connaissance de l'état de santé euh, euh, des des ca parce que ne waaye nit ak i noppam goo xamante ni xamul waaw médecin ñëw fi mm-hmm. biñ fi nekkee ba tey mooy li ma la doon wax rek li ma waxoon daam boobu di liggéeye foofu noonu si hôpital bi mooy moom si responsabilité am si en temps de pandémie bu dee ñoom li ñuy wax ne dëgg la moom waroon na ñëw fii xool ba xam ñun am nañu benn suivi médical bi en plus ce qui est moom mooy dañu exposé ñeneen voilà bu fekkee ni dëgg la corona nañ exposé nañ ñeneen parce que am na ñoo xamante ni xamuñu ne corona nañ ñoo ngi ñëw si suñuy néeg di ko defar ak ak yeneen ak yeneen donc ñun ñoo am ngëm yàlla walla di sàmmonteeg yenn yi pour bañ leen wàll waaye donc ñoom yooyu lépp lu ñu waroon waranteeg ñun si côté sanitaire defuñu si dara démb nag la ay garab ñëw. di si koo xamante ne wax nga ne ko feebar nga feebar boo xamante ni wàll wi jéggi na dayoo démb te bu nu wàccee léegi nga xam ni garab yi man daaj jiw ma sama bos mhm. parce que fekk na ñun comme que dañ ne dañ feebar nit du la gën a bëgg sa wér gu yaram ñun jëloon nañ suñuy matuwaay ba xool nu ñuy fajoo waaw man Djibril Gaye laa wax moom moom laa wax ci njëlbeen noonu laa tudd car manager ou bien dispatcher à Huawei Technologies di wax ne dañuy liggéey via des société intérimaire ok. waaw contrat bi moom laa wax. via une société intérimaire mais qui exerce dans les locaux de Huawei maintenant Huawei moo ñu. Euh, ku ne bëri na fii am na Accelerate am na Flow Consulting maintenant ñun nag mooy waawe ah, moo jël responsabilité confiné ñu. loolu moo tax ñuy wax ni ñun waxuñu ak suñuy société parce que nous avons des contrats ak ñoom bu laajee leneen ñoom buñ parce que ñun biñ ñu waxee informé nañ leen nit ki tamit nga koy informé mu naan yëguma si dara man dama laa informé waxuma la ba xam yëg nga wala yëgoo gars yi dañuy accusé wu si yenn yoo xamante ni kenn waxu leen ne yenn def wala lii nit ki yóbbu nga ko fenn muy liggéey ki ngay ki muy liggéeyal ne la bul duggati moo wax la ko nga naan ma ay man yëgu maag loolu yow looy yëg dañ laa yëgal rek voilà aussi mooy li ma wax nii rek ñun ñi ay société yu wuute yu fi yu fi liggéeyee ay ay société intérimaire lañ man Flow Consulting am na koo xamante ne Excelerate ñeneen ñi ñoo ngi bokk ci yenn société ñoom bi nga xam doon ñuy yabal ci bërëbu liggéeyukaay ñooñu ne pour ngeen liggéey fii mooy dafa am anam ak i charte yoo xamante ni da ngeen koy matale pour lii loolu nag nekkul ci responsabilité société boobu soci euh, responsabilité bu Huawei technologie Sénégal la ñoom nag ñu teewoo ñu seen bërëb bu liggéeykaay ne da ngeen di wér péng doo leen amee benn feebar doo leen da ngeen di takk masque da ngeen di confiné wu ba loolu ñun ñu nekk fa ba loraange fekkuñu fa ñoom ñu bàyyi ñu loolu la ñuy xeex maintenant société yi comme ni ma leen ko waxee man en personne bind naa yónnee ko suñuy responsable mais moom danaa dane ma je n'ai aucune information en ce sens kan moo la wax da nga recevoir wala danga nga ci am responsabilité boo ci jël boo ci jël donc moom lu mu war a jëli ji la war a doon parce que boo yabalee ndaw ñu ne ko fi nga nekkoon de dañ la fa génne yow dañ la yëgal pour nga mën a taxawu ndaw loolu mais lu tax ñoom ñuy accusé wu di victime wu di wax ay yenn yoo xamante ni. Mhm. Mhm. mooy li ma la wax li nga ne dañu ñëw jiiñ waawee waayowee bu la teew nit bu la teew yow boo teewee nit sa kër boo fekkee ne sax baayam wala leneen moo ko fa yabal boo génnee nit ki dina wax ne eh, baay diw de génne na ma këram gi ma yabaloon bin ko defee baayam dane dafa wax ne man de génne gim la génne yëguma si dara yow ñu ñëw di la yëgal ni la génne nañ ma nga naan génne gim la génne yég yow kay da boo ko yëgoon du la ko wax donc ñoom si seen manque de responsabilité communiqué wuñu directement avec les sociétés concerné dañ ñëw directement si ñun ñu ne ñu da feebar dangeen ngeen nangam ak nangam ñibbi leen seen kër ñu lànk ñu indi ñu fii benn fan ñaari fan ñu ni dàq nañ leen donc loolu la ñuy nekk di wax ne depuis si njëlbeen nga ñoo ngi koy wax donc on a su parler avec constance dans nos propos donc loolu mooy li nga xamante ni depuis bi ñuy wax ba léegi moom la ñuy wax maintenant nag si vous voulez on va faire une liste des entreprises concernées wax naa nit ñi wuute nañ si bërëbu liggéeykaay yi ñu ne waaye ñu waaw man ñi ma xam laa wax. Euh, Accelerate Accelerate y' a y' a Accelerate Flow Consulting. y' a Flow Consulting et Excel Accelerate a hmm. sous-traité avec Lyon Sécurité. Lyon Sécurité en ce la sécurité Accelerate a sous-traité. avec euh, Lyon Sécurité en ce qui concerne la sécurité et, et également à sous-traiter avec Cleveland mm en ce qui concerne le nettoyage et en ce qui concerne ceux qui travaillent euh, à, la restauration. d'accord. Uh-huh. Comme uh -huh. uh -huh. c'est bon. Face à la caméra. Je me nomme Emmanuel, Emmanuel Sarr. Euh, je travaille au niveau de la sécurité de Huawei. Je suis l'un des vigiles, euh, l'un des vigiles de Huawei. Donc euh, ici, nous, nous sommes, comme, nous sommes trois, deux sociétés. Nous sommes deux sociétés qui ont sous-traité avec Huawei Technologies. Il y a Accelerate, à sous-traité avec, avec Cleveland en ce qui concerne le nettoyage et en ce qui également la restauration. Euh, Accelerate a également sous-traité avec Lyon Sécurité pour ce qui concerne la sécurité. Donc nous sommes deux, il y a deux sociétés, Accelerate et Flow Consulting. Accelerate a sous-traité avec deux sociétés, Cleanland et Lyon Sécurité. Donc nous, nous sommes, au départ, nous étions au nombre de 11. Ceux qui ont été testés positifs ou soi-disant positifs, parce que moi je doute, je de leurs test je doute de la fiabilité de leurs test parce que euh, ce qui c'est euh, ce sont les agents les agents de santé de Philippe Maguilène Senghor qui ont fait le test. Un jour un jour après, ils sont venus pour nous dire que nous nous avons été testés positifs. Moi, dès le départ, j'ai toujours douté de la fiabilité de leurs tests. J'ai toujours douté de la fiabilité de leurs tests parce que comment se fait-il les gens, les concernés, ceux qui sont concernés par ce test, les, les résultats ne leur ont pas été envoyés. Nous sommes les premiers concernés et les résultats ne, ne, nous, ont pas été, ne nous envoyés. Mais comment se fait-il Est-ce que Accelerate ou euh, Flow Consulting, est-ce qu'il se préoccupe plus, peut-il peut se préoccuper plus de notre propre santé par rapport à nous-mêmes Peut-il aimer plus notre santé par rapport à nous-mêmes Mais non, ça, ce n'est pas normal. Le fait que les agents de Philippe Maguilène Senghor traitent directement soit avec Accelerate et Flow Consulting. C'est là-bas qu'ils envoient directement nos, nos, les résultats de nos tests. Moi, je trouve ça anormal. Pourquoi? On n'a aucune preuve que nous, nous sommes testés, que nous sommes positifs. Nous n'avons aucune preuve et je doute. Jusqu'à la dernière minute, moi, je doute de, leur, de la fiabilité de leurs résultats. Ici, euh, en ce qui concerne les responsables, en ce qui concerne les responsables de Accelerate ou de Flow Moi, personnellement, je ne, je, je, je vois aucune médiation de leur part. Parce que comment se fait-il que des gens soient confinés pendant deux jours, trois jours Vous venez le deuxième jour ou le deuxième jour ou troisième jour pour leur amener leur, leur médicament. Et comment se fait-il également que les confinés ici n'ont pas eu un suivi médical depuis que nous sommes là Des gens qui ont été testés positifs et qui sont capables de contaminer d'autres personnes avec tout le risque que cela comporte. Vous confinez ces gens-là et vous leur, vous leur administrez même pas, même pas une, une seule piqûre, une seule piqûre ou un seul comprimé ne leur a été donné. Deux jours, trois jours, il a fallu le troisième jour pour que vous leur apportez leurs leur médicaments. Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas à quel jeu ils jouent. C'est l'un des responsables, c'est l'un des responsables de Huawei technologie via, via Accelerate, la société Accelerate. C'est l'un il n'y a pas de santé qui a amené les médicaments. Il n'y médical depuis que nous sommes là. Tout ce qu'il a fait, c'est hier d'ailleurs, hier dans l'après-midi, aux environs de 16h, 17h, qu'il les médicaments. Ici, nous ne cher cherchons pas à condamner qui que ce, qui que soit, mais nous ne cherchons pas à condamner qui que ce soit, mais que nous voulons que les responsabilités soient situées. Je veux que en tant que responsables, qu'ils prennent leurs En cas de pépin, qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais en responsable qui fit ses responsabilités. Ça, je, on ne se retrouve pas. On ne se retrouve pas dedans et on ne se retrouve pas dans leur posture, dans leur démarche. Nous ne retrouvons pas dans leur démarche et dans leur posture. après la mise en euh, Après. Il y a la. C'est pendant la mise en quarantaine qu'il y a le licenciement abusif. C'est. que hier même, C'est hier même qu'on nous a dit, c'est hier même qu'on nous a annoncé comme quoi qu'on va nous arrêter. C'est hier qu'a eu lieu le licenciement abusif. Nous tous, excepté deux personnes. Excepté deux Sauf c'est les neuf qui ont été licenciés abusivement hier. Pendant, la quarantaine. Oui, oui. C'est Huawei directement qui a, traité avec l'un des responsables de Accelerate. Huawei a traité, a parlé avec un des responsables de pour lui faire, pour lui faire part euh, pour lui faire part de leur décision comme quoi que eux, on a été arrêtés parce que nous sommes positifs. Sans préavis. Et l'un des responsables de Huawei est venu hier, nous nous sommes concertés, nous avons discuté avec lui, mais il ne nous a, il ne, il nous a rassuré en aucun point. Il dit que, bon, la situation est, est, est, est telle qu'elle est. Moi, euh, je suis limité, je ne peux pas faire grand-chose, je suis limité. Et c'est comme ça. Ce sont les Chinois qui ont leur société, c'est eux qui décident, ils ont pris la décision, moi, bon, je ne peux rien faire. Un responsable vous dit ça. En tant qu'employé, imaginez, im, im, imaginez-vous un peu à notre place. un responsable qui aurait pu faire une médiation, qui aurait pu avoir une posture sage et digne et faire face aux Chinois pour leur dire que, leur faire savoir que les décisions qu'ils sont prises, ce sont des décisions injustes et anormales. Même s'ils ont sous-traité avec d'autres sociétés, de manière unilatérale, ils prennent la décision d'arrêter des gens de manière unilatérale. Ça, c'est injuste. C'est injuste et c'est anormal. Et ça, nous condamnons ça. Jusqu'à la dernière énergie, nous condamnons cela. Fermement et catégoriquement, nous nous opposons à cela, à cette décision. Même s'ils ont sous-traité, même s'ils ont sous-traité avec d'autres sociétés, Huawei technologie au moins il y a un contrat moral. En tant qu'être humain, il y a un contrat moral qui nous lie avec Huawei technologie Il y a un contrat moral. vous étiez combien euh, le groupe mm -hmm. moment, le moment oh. que vous faisiez okay. Vous étiez plus euh, okay. 11 ou... J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris votre question. Euh, lorsque nous faisions le test, nous avions, nous étions plus d'une trentaine. Okay. Lorsque nous faisions le test, nous étions de 38-39, aux environs de 38-39 personnes. Les 11, les 11 ont été, postés, ont été testés positifs. Mais même si ces gens-là, même si ces gens-là sont testés positifs, des gens qui ont fait un an, un an et demi ou deux ans, d'autres même trois ans, une, ils ont fait plusieurs tests là-bas. Et peut-être, et peut-être, je dis peut-être c'est la première fois qu'ils sont testés positifs. Et ces gens-là, d'un seul coup, ils ont été testés positifs, vous le dites, pop, vous arrêtez. Vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas au préalablement parlé à le supérieur, vous dites que vous arrêtez. de manière unilatérale. Est-ce que je, que je veux savoir, et je veux que les responsables de Huawei m'apportent des, réponses, est-ce que les Chinois sont au-dessus des lois? Est-ce que les Chinois sont au-dessus du Code du travail? Est-ce que les Chinois sont au-dessus des lois au Sénégal? Est-ce que les Chinois sont au-dessus du Code du travail? Ou bien les lois, le Code du travail ne s'applique pas aux Chinois? C'est pas parce que tu as une entreprise que tu fais tout ce que tu veux. C'est pas parce que tu as un parti politique que tu fais tout ce que tu veux. C'est pas parce que tu es père de famille que tu traites n'importe comment tes enfants. Ils n'ont pas waouh a un droit de vie et de mort sur tout ce qui, sur tout ce qui travaille là un droit de vie et de mort sur quelqu'un, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux, comme tu le veux et, quand, et le sens. il y a beaucoup de licenciements abusifs qui sont qui sont passés là-bas. Au-delà des licenciements abusifs, euh, par rapport à vos contrats, mm-hmm. est-ce que auparavant il n'y a pas, il n'y a jamais eu de problème concernant vos salaires, mm-hmm. concernant vos prises en charge? Parce que si vous dites qu'il y a des employés qui ont des CDI, mm-hmm. il y en a qui ont des CDD, mhm. il y en a d'autres qui sont des prestataires qui travaillent euh, euh journalièrement, mhm. mais euh, il en est que il y a quand même un contrat qui vous lie. Mmh. Mmh. Bon, euh, en ce qui concerne les contrats, même s'il y a des contrats formels, écrits, je sais que la majeure partie des contrats là-bas, ce sont des contrats bidons, excusez-moi du terme. Tu sais, un contrat bidon, c'est-à-dire en soi-disant contrat. Ce sont des soi, pour ce qui concerne euh, Flow Consulting, Accelerate, la majeure partie, ce sont des contrats écrits, ce sont des contrats bidons, des soi-disant contrats. Ce ne sont pas des contrats solides, mais un contrat, un contrat qu'on peut résilier quand on veut Est-ce que vous, vous, me saisissez Un contrat qu'on peut, contrat qu'on peut annuler quand on, veut, quand on veut et comme on veut. Un contrat qu'on peut annuler aujourd'hui. Tu fais une petite erreur aujourd'hui, on annule ça aujourd'hui. On résilie le contrat aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est un contrat, en bonne et due forme Ils peuvent me démentir si je me trompe. Est-ce que ça, c'est un contrat en bonne et due forme Un contrat qu'on peut annuler et résilier aujourd'hui C'est des soi-disant contrats, monsieur. Oui. Euh, Est-ce que vous Pour l'instant, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Euh, en ce qui concerne euh, en justice ou aller en justice, pour l'instant, on n'a pas encore pris une décision par rapport à ça, mais nous allons nous consulter ultérieurement. Ici, le premier pas, à faire, à poser, c'était de parler à la presse. C'était de parler à la presse et de, de, dénoncer ces injustices. Ces injustices qui ont été, euh, portées contre nous. C'était pour dénoncer ces injustices-là. Ultérieurement, nous allons voir comment procéder. Si, si éventuellement la situation demande que l'on est en justice, nous allons rester en justice. Tu sais, euh, j'ai comme l'impression que ce soit des gardiens, ce sont des nettoyeurs, c'est C'est, c'est, c'est des têtes. Tu sais, ils, ils, non, c'est, c'est bizarre. Tu il y a, il y a de ces, il y a de ces emplois, il y a de ces jobs. Quand tu fais ça, les gens ont tendance à, à, à sous-estimer, à sous-estimer les gens, y compris même, y compris même certains supérieurs. Ils pensent que c'est des têtes villes, on peut, on peut faire tout ce que l'on veut. Le Sénégal, vous savez, monsieur, d'une part, il y a un problème, certes, d'emploi qui se pose. C'est à cause de ça, peut-être, que les gens abusent. Parce qu'il y a, il y a un problème d'emploi dans toute l'Afrique. C'est à cause de les Chinois jouent sur ces les, les, les, les Chinois jouent sur ces cordes. Ils savent qu'il y a un problème d'emploi qui se pose, donc tout ce que l'on fait euh, sur tout, le poids qu'on peut leur poser, il n'y a pas de problème, ils vont accepter. Et ce n'est que ça. C'est de l'injustice, c'est de l'abus. Et c'est anormal, c'est injuste. Est-ce qu'il n'y a pas aussi mhm. euh, une fuite de responsabilité?

Oui, pour revenir à ça, je ne peux pas parler au nom, au de toutes les sociétés, mais je sais qu'il y a certaines sociétés qui ont fui leurs responsabilités. Lorsque les Chinois ont pris ces décisions, ils ont, ils ont la en avant. Les, les, les France, les Toubabs disent la fuite en avant. pris la fuite en avant. Ils n'ont pas voulu assumer leurs responsabilités. Parce qu'en leader, en responsable, se reconnaît dans des moments difficiles. Tu prends tes décisions et tu fais face. Mais c'est pour protéger leur intérêt crypto personnel qu'ils ont voulu sacrifier huit personnes. Parce que si j'ai bien compris, le gars a vous êtes licencié, hmm? nous lui avons demandé, mais comment se fait-il que ces gens, ils ont pris la décision de de vous arrêter. Mais comment comment peux-tu arrêter quelqu'un de manière abusive, quelqu'un qui a un contrat comme ça? Il me dit, oui, ce ce sont les Chinois. c'est la maison des Chinois, c'est leur société, on ne peut pas faire grand-chose. C'est la... Ça, c'est... Oui, on ne peut pas faire grand-chose, je suis limité. Oui, comme tel, bon, je ne, je n'ai pas, je ne peux pas faire grand-chose. L'information m'est parvenue comme ça, tout comme vous, ben, c'est, c'est comme, c'est ça, c'est ça. C'est une société chinoise, on ne peut pas faire grand-chose. Ça parce que chacun protège ses intérêts, monsieur. Il faut qu'on se dise les vérités. Chacun, ses responsables, la protège leur intérêt, protège leur poste. C'est légitime. Je ne veux, je leur en veux pas. C'est légitime de protéger ses intérêts. Mais on est dans un pays de droit et le droit des autres. 8 personnes, 9 personnes pour votre propre poste. Ouais, mhm. Mhm. si. Si, si, si, jamais on arrive à un tel point et que nous voulons essayer en justice, ça sera bien sûr contre, contre qui nous a licenciés abusivement, sans même aviser les, sous, les sociétés sous-traitantes. sans même les aviser, les sociétés sous-traitantes. Donc il y a un abus de notre part, mais également par rapport aux sociétés qui ont sous-traité avec Huawei. c'est un manque de respect total. C'est un manque de respect. C'est, c'est, c'est... Huawei rien à faire avec, les lois, avec la justice. par exemple, hier, j'ai parlé à mes supérieurs ils m'ont dit qu'ils n'ont pas été au courant. Monsieur, monsieur, pour vous dire, jusqu'à présent, ce n'est pas notifié, c'est verbal. Mais pour le, pour l'instant, pour l'instant, nous n'avons pas reçu une notification écrite. C'était, c'est une Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu les tests. Aucun papier, aucun papier nous attestant, nous montrant que les tests ont été positifs. Et nous, nous réclamons cela. Nous réclamons test, les tests qui ont été dits positifs. Nous réclamons que ces tests-là nous soient donnés pour qu'on ait une preuve matérielle comme qui que nous, nous sommes positifs. Et les licenciements, qu'il y ait... Qu Monsieur, qu'est-ce qui est à l'origine exacte de notre licenciement Nous voulons savoir cela, l'origine exacte. nous voulons une notification écrite comme quoi que nous avons été licenciés à cause du, à cause du corona. Ainsi que, ainsi que les raisons. Il y a également un problème qui se pose. Ceux qui, ceux qui ont été, pour résumer, ceux qui là-bas, c'est-à-dire ceux qui ont été confinés au niveau, de, au niveau de Huawei Technologies, il y a une prime de confinement qui leur est donnée chaque fin du mois. Il y a une prime de confinement qui leur est donnée chaque fin du mois. Et et cette prime de confinement leur devrait être donnée chaque fin du mois. Cette prime de confinement leur devrait être donnée chaque fin du mois. Ce que, ce que les Combien de mois Chaque fin du mois, n'est-ce pas Ça fait trois mois, nous avons trois mois d'arriéré. Nous... Par... Non, non, nous n'avons pas d'arriéré de salaire parce que les salaires passent par les sociétés sous-traitantes. Les salaires passent par les sociétés sous-traitantes et ces sociétés sous-traitantes, quoi que l'on puisse dire, on n'a pas d'arriéré avec eux. Même si le retard, bon, le, il y retard de vers le cinq 8, 10 quand même, mais ils nous n'avons pas d'arriéré de salaire. Le problème, nous voulons qu'ils nous, qu'ils nous paient les trois mois d'arriéré de primes, de awards. Les trois mois d'arriéré de primes, nous voulons qu'ils nous paient ça, sans, sans négociation aucune.

Le dimanche. Le dimanche. Normalement demain. Normalement demain. Jeudi. Ouais. Demain. Ça un mhm. Mais nous allons nous concerter. Mon, frère, nous on va camper ici. On va camper ici de gré ou de force, nous allons camper ici jusqu'à ce qu'ils nous disent quelque chose d'audible et de compréhensible. Sans cela, nous allons pas décamper. Parce que ça, c'est de ça c'est de la force pure purement et simplement pour résumer oui, nous nous voulons qu'ils nous payent nos trois mois d'arriérés de prime ils nous doivent trois mois d'arriérés de prime des primes de confinement nous voulons qu'ils nous payent ça sans délai également il doit avoir un suivi médical avant de sortir d'ici nous nous voulons nous Tant que nous ne serons pas testés négatifs, nous ne sortirons pas d'ici. Parce que si ce qui est supposé être dit, c'est-à-dire que nous sommes positifs et qu'on nous laisse rentrer dans nos familles, si cela est avéré, nous allons contaminer nos familles. Si c'était les Chinois, est-ce qu'ils allaient accepter ça? Non. Nous n'allons pas prendre le risque, si cela est avéré, d'aller contaminer nos familles. Ça, nous ne le pas. Nous ne venons pas de la rue, nous venons de familles dignes de ce pays. Donc, ils n'ont qu'à nous respecter. Nous venons de familles Ils doivent le savoir. Donc nous ne sortirons pas d'ici tant que nous ne serons pas testés négatifs. Nous ne sortirons pas d'ici. Et nous voulons, nous voulons les trois mois d'arrêt de prime sans aucun délai. Nous voulons également qu'il y ait un suivi médical. Nous voulons que les responsables là-bas nous viennent de dire de, de, de, euh, nous viennent discuter, se concerter avec nous de manière claire, que nous, pre, que nous prenions des décisions claires, que nous prenions des, des, des, des décisions claires. par rapport au licenciement abusif. Oui, oui, une indemnisation par rapport au licenciement abusif. Une indemnisation par rapport au licenciement abusif et qu'il y ait un suivi médical. Nous voulons, avant que nous quittions ici, nous voulons quitter ici en, restant néga, en, en étant négatif. Mais nous ne rentrerons pas dans nos familles en étant positifs. Si ce qu'ils disent est vrai, parce que je, je conteste et je doute de la fiabilité, encore une fois, de leurs tests. Et vous rappelez qu'aucun d'entre nous euh, ne ressent aucun signe. Hein? Donc, euh, nous tous, nous ressentons aucun signe euh, qu'on qu connaisse euh, euh, de, de, la maladie. Donc, ce que nous dites, c'est, comme euh, je, je l'avais dit en Wolof, il y en a des responsables de famille qui sont là, des pères de famille. Il y a certains aussi qui ne sont pas euh, de Dakar, et qui, qui, ont, qui ont pris des engagements. Et ils, ils, doivent euh, de l'argent aux bailleurs parce qu'ils ont loué quelque part. Et cela depuis une année. Et ils ont maintenu leur euh, location tout en restant confinés euh, dans les locaux de Huawei. Donc c'est anormal qu'un jour, une information nous survienne comme quoi qu'on est licencié, et cela sans préavis. De fait, nous demandons qu'il y ait un, une indemnisation euh, pour licenciement abusif, et nous vous rappelons que nous ne souhaitons nullement retourner dans les locaux, parce que, pour vous dire vrai, les Chinois ne traitent pas les Sénégalais comme des humains. Ils pensent que toute personne, toute personne euh, non chinoise n'est pas humaine. Donc, euh, vous, vous, vous, allez dans les locaux, un ignorant chinois vaut mieux qu'un mm -hmm. savant sénégalais. Mm -hmm. Si vous allez là-bas, des Chinois, des villageois, pour ne pas être racistes, nous traitent ou bien nous crient dessus sans aucune raison valable. Quand vous reportez cela euh, quand on rapporte cela à nos supérieurs, ils nous disent que si vous ne faites pas votre travail normalement, sans, sans connaître les raisons aussi, vous, vous, vous, vous devez être euh, crié dessus par vos boss. C'est le terme boss qu'ils utilisent même, car étant des tarés. Merci beaucoup.